waaw bilan bi de dañuy sant yàlla alhamdulilah rabil alamin wax ne yaakaar nañ ne baax na ndax tey jii ñëw premier jour congrès suba la ñu waroon a élire secrétaire général amul keneen koo xam ne samp na ndëndëm ñu def benn motion ñëpp d'accord ne dañ may sampaat lool mooy wane liggéey bi ñu def man ak ñi ma àndaloon l'équipe di bureau exécutif national liggéey bu rafet la liggéey bu mucc ayib la mais quand dañuy wax ne rek doyul dañu war a dolli dolli bi mooy fexe ba ñun suñu liggéey bii ñu ñoŋal ko fexe ba tamit liggéeykat yi ñu gën a may avantage parce que liggéeykat buy sacrifier di bàyyi sa njaboot euh, kër kër ga nekk si àll bi ba guddi da nga bëgg loo yóbbu sa njaboot donc dinañ fexe pour que ñu gën a améliorer les conditions de vie et de travail des travailleurs de Sénélec fexe aussi liggéeykat yi bu ñu liggéeyee ba wàcc dem seen kër yi ñu mën a noppalu ko week-end aussi ñu mën a noppalu ko waaw ñun ñëpp xam nañ ne gouvernement américain jox na Sénégal 530 milliards mais loolu dafa amee ay conditions yu mu ko teg conditions yooyu nag ñun bu fekkee ne mënul ñàkk parce que état bi mooy le pouvoir politique moom bu fekkee ne décidé na ne réforme dafay am il faudrait que ñu ne ko réforme yi ñun liggéeykat yi war nañ ci gis suñu bopp naka lañ ciy gisee suñu bopp mooy bu mu am perte d'emploi ensuite avantage yi nga xam ne amoon nañ ko aussi buñ ko yokkul kenn du ko wàññi ensuite euh, sénégalais yi nga xam ne ñoom ñooy jëfandikoo courant bi ñoom ñooy suñu raison d'être ñoom ñooy suñu ay sang ñu fexe aussi ba ñoom réforme bi ñu gis ci seen bopp naka lañ ciy gisee seen bopp mooy ñu fexe ba courant bi ñu wàññeeku. maintenant gis ngeen crise yi am ci àdduna bi mu ngi tax ay yokk-yokk ñu koy am ci lu bëri gis nañ ne super bi yokk nañ ko mais suñ deful ndànk ci courant bi la ñu jëm mais ñun nag syndicat lañ bien que ñu ngi liggéey biir Sénélec mais syndicaliste bëggul dara loo xam ne yokk lu dul yokk salaire. donc ñun bëgguñu kenn ku yokk électricité bi état bi na jël ay dispositions pour que le coût de l'électricité qui est déjà cher ñu jéem ko wàññi suñ ko mënulee wàññi aussi nañ ko yemale fii mais liñ yokk ci super bi moom bëri na te loolu wax dëgg yàlla ñun dinañ gis ak association consumériste yi ak les autres organisations syndicales naka la ñuy def ba ñu maintenir les prix. waaw réalisation bi ma ci gën a neex daal mooy suñu mag ñi nga xam ne ñoo fi doon liggéey ba retraité. fexe nañ ñun ak direction générale def ay cotisation ba ñoom léegi ku ci retraité dañ lay kon ne jël en charge médicalement di la jël di la faj di la toppatoo ba ba nga xamante ne bii loolu mucc na ay leneen li aussi mooy jot nañ fi am ay augmentation de salaire ensuite secteurs yi nga xam ne dañoo affilié ci ñun muy Azer Commacel Kunun Power Condu Global ak euh, Tegma def nañ ay accord ak seen ay direction général ba nga xamante ni bii loolu neex nañu lool ndax ñoom dañu bàyyi seen entreprise ñëw fii jox ñu confiance te bi ñu ñëwee aussi ñun gàccee lu ñu leen leneen li tamit mooy fexe nañ ba wàññi endettement liggéeykat yi parce que fépp fu ñu doon jox avance fexe nañ ba avance yooyu nekk ay subvention loolu nag doyul parce que liggéeykatu Senelec soxna encore ñu yokk euh, salaire am comme yeneen liggéeykat yi nga xam ne ñu ngi dans le secteur donc fi mu nekk nii on ne fait que commencer def nañ benn mandat gars yi nee nañ baax na donc di lañu gën a laxasaayu pour gën a yokk avantage yu militants yi nga xam ne ñoo affilié Sutelec